sant sama ñaari waajur sant Cheikh Ahmadou Bamba sant sama sëriñ bu baax wa jiitu sëñ Mor Silla di sant sëñ Mbacke Silla mi nga xamante ne bii moo ko fi toogal jataayam ak ay rakam yëpp te sëñ Modou Mbacke mi teewal ko berne bi nag comme ni nga ko waxee rek Cheikh Ibra da daan wax ne bindal dabe dabe moom ndab dabe moom boo bëggee dabe da ngay wax dañ dañ naa da dem ci ndab ndax danga koy xool ci weeru koor yi nga xamante ne bii dañ koy woor koor moom ku nekk xam na ne mën nga koo woor waaye yàlla mën na koo nangu waaye yàlla tamit mën na koo bañ a nangu li nga xamante ne bii nag moo joxe ñam dafa nekk loo xamante ne bii aji ki nga xamante ne bii dafa xiif nga leel ko rek loolu dong dafa doon tawféex joo xamante ne bii kenn amut kenn xamut ban payo la ci suñ borom subhaanahu wa di fay yàlla dogal nag jëwriñ bi nga xamante ne bii mooy sëriñ bi nekk ci kër gi di sëñ moo di sëñ Mbacke Sylla di sëñ Mbacke Sylla nga xam ne moo nekk koo xamante ne bii moo ñu teg tey jii fii nga xam ne dañoo war dañoo commencé euh, daayira bu bees boo xamante ne bii dañuy taxawaat kër gi taxawaay boo xamante ne bii taxawaay bu am solo moom nekk feek sama mbokk jëwriñ yi ñu ñu teewal ma fi ku mel ni sëñ Mor sëñ Mor njaay ak Baye. sëñ Mor Ndiaye ak ku mel ni ku mel ni sëñ Moussa Mee ak ak ak ku mel ni sëñ Demba Diop Mee ñooñu doon ay jëwriñ yoo xamante ne bii tamit seetaan nañ ma benn yoon ci liggéey bi ndax boo xoolee li ëpp ci liggéey bi ñoom ñoo koy def xanaa lenn rek lañ may soxlaa xool loo xamante ne bii manqué na wala loo xamante ne bii luy yàqu ñu xool ni ñuy defee ba jagal ko wàllum bernde yi tamit li ñi nga xamante ne bii dañ ko fee defal mu di xéewal yëpp jubluwuñ ci lenn lu dul bégal gan yi nga xamante ne bii ñoo ñëw ci ngan gi ndax bisub tay bii bés la boo xamante ne bii ngam la goo xam ne nii dañ koy feddali muy suñu kóllëre ga suñu suñu wasile wa nga xam ne mooy maam seex Anta ak magam ju baax ja nga xamante ne bii mooy Cheikh Ahmadou Bamba ndax Serigne Touba defal na ko loo xamante ne bii defalu ko ñu bari wala defalu ko kenn ndax boo déggee tey ji kuñ seexal ñu ne diw seexal nañ ko turu maam Cheikh Anta moo tax ndax moom moo njëkk a seex mu ngi seexe fii ci Daaru Salaam bi muy seex fekk na sëriñ bi yor 99 taalibe mu boole ko taalibe yooyu yëpp jébbal ko Seex Anta joxaale ko Daaru Salaam Daaru Salaam tamit doon dëkk boo xamante ne bi sëñ Modou Moustapha mi nga xamante ne bi mooy taawu sëriñ bi fi la ganoo àdduna Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xamante ne bi moo ci topp di deuxième xalifaam fii la ganee àdduna maam Cheikh Ibrahima Fall mi nga xamante ne bi ku wax yoonu murid tudd ko ci armée li Daaru la amee ngërëm kon Daaru Salaam boo xamante ne bi lépp loo xamante ne bi waaye wut si na ko fi yàlla mën naa dogal nga am ko ci bu fekkente ne danga koy def ci jaayante tax te yàlla tax di sant maam Cheikh Anta Mbacke dërëm ak ngërëm ñu borom màggal bi di sant maama Sylla Ndaak sunu wasila di sant sëñ Mor Sylla mi nga xam ne mooy borom kër gi ñu di ko ñaanal yàlla oyofal suuf ci koom yàlla xare ko àjjana may ko ci àjjanay firdawsi ñu yàgg fi di fi ñëw di ko ñaanal di ko màggalal di ñaanal sunu doom ji fi nekk di sëñ Mbàkke si la mi nga xam ne moom la fi yàlla teg mooy xalifa bi ñu ko ñaanal yàlla bàyyi ko fi ba mu sut baayam aw fan jiite ay rakkam bu baax a baax a baax yàlla bàyyi leen fi ñëpp fekke ko ñu yàgg di ko ñëw di ko màggal di ñibbeeg jàmm yàlla di ci def xiiwal te lépp luñ ci ñaan yal na ko suñu boroom yàlla nag ci barke Seydina Mohamed barke Mama la Ndaang mi nga xam ne mooy suñu wasila la sëñ Mor Fatou Sylla waaw ak ak ak berne yi waaw xanaa kontaan ci rek kontaan ci rek ndaxte loo xam ne da ngaa fekkoon say maam di ko def say baay di ko def. nga ku tem dem ba doon sët tey wala nga doon doom ba di ko ni ko teg ci sa loxo kon da ngay sant yàlla bu baax di sant say waajur di sant sëñ Mor Fatou Sylla ndax biñ fi ñëwee depuis bërki démb ba léegi macha allah dara manqué bu fi lépp lu fi war a am rek am na fi nag manqué wu fi xar manqué wu fi ginaar manqué fi ginaar manqué eh, bëy manqué wu fi ndugg mi macha allah gis nga ko nii kenn waxu leen ko. jaab bi lépp lu waaye war a def rek def nga ko nu fi taalibe war a taxawee rek taxaw fi ñu ta ñaanal taalibe yëpp nekk ndax taalibe bu fi war a noo fi war a taxawee rek yàlla dogal na taxawee nga ko fi kon ñoo ngi ñaanal ñëpp luñ fi man ren bu déwén ne yàlla nañ ko man ba muy fukk. asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant di leen di gërëm sant naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Anta borom gaawaan coow li coow li coow li sëñ Bamba la cooli cooli sëñ Bamba la ndax moo demoon ba ñibbisi ñëw fii dal fii ba fi ñëwee ñu ànd ak ñun ànd ak sëñ Masila Ndaak sunub sëriñ sunub yaakaar fii ba àjjana sëñ Fallou lépp moom la ñi ñaan sëñ Mor la yan na yàlla xare ko àjjana waaw ak ñoom fa fekk ñëpp ak gis-gis ci màggal euh, ko taxawoo ak yooyu xanaa rek rek laxasaayu rek laxasaayu rek ba àjjana rek ñu laxasaayu rek ba àjjana rek waaw fii moom kon li yaajoor wax rek dara manqué wu fi dara manqué fi di ñaan sëñ Mbàkke si la yàlla bàyyi ko sunu kanam ak sëñ Fall yéen a ngi ànd ak seen portail Baol Média nekk fii ci Mbàkke Bawol